que mën na indi beneen gàllankoor boo xamante ne daf koy décrédibiliser. est-ce que. Mhm. est-ce que moom moo am problème wala est-ce que c'est la société sénégalaise moo am problème. c'est une question à à à à euh, voilà donc aujourd'hui la personne de Ousmane Sonko en tant que qu'institution. wax naa ko ci benn émission. ma ne bi ñuy gën a nekk xale. bu ñu la laajee loo bëgg doon. da ngay ne ministre directeur général président de la république ainsi de suite c'était pas la personne en tant que telle mais institution bi nga xamante ne moom lay incarner ci biir société bi c'est important boo jëloon genre personnalité yooyu doo leen mës a dégg ci yenn yi doo leen mës a gis yenn yi seen kàddu sax seen kàddu sax dafay néew ñu koy génnee parce que lépp loo xamante nañ ko dañ koy génnee liñ ciy xalaat mooy la société en tant que on voit que li nga xamante ne même mooy ces ces institutions les personne yu koy incarner ñoo koy décrédibiliser et c'est ça le malheur donc aujourd'hui ñun dañu am ay doom comme j'ai toujours tendance à le dire mais suñuy doom dañuy toog di seetaan soxla ay modèles modèles yooyu tey di nga toog ak sa doom peut-être yow yaay nekk premier modèle am mais bu génnee ci loolu mu ngi xool ministre bi nga xamante ne moom lay jàkkaar lool directeur général bi nga xam moom lay jàkkaar lool bi nga xamante ne moom lay jàkkaar donc tey il appartient tey à nos autorités ñu gën a defaraat li nga xamante ne mooy son seen toogaay par rapport à la société. très bien je mhm. mhm. teg benn point d'interrogation kan moo am problème la société ou la personne de Ousmane Sonko. Mhm. kan moo am problème c'est-à-dire que population bi maintenant dañu dañu nekk benn population analphabète benn population boo xam ne si ni il ne réfléchit pas. ou est-ce que les mensonges de Ousmane la ñu bëgg a gëmloo ni loolu mooy dëgg. au point que lépp lu ñëw dañ ko war a gëm. mais non <laughs> quand même Sénégal judduwul démb. Sénégal pays intègre on a toujours eu des hommes d'État des hommes yoo xam réfléchis. effectivement donc si Ousmane tey jii moom moo nekk ci ces délires mais les Sénégalais mënuñu ko topp ci délire boobu mënuñu ko consommer forcément il faut que ñu rétorquer ko delloo ko loolu ni ko li ñu wax gëmuñu ko parce que mënut a nekk. mënut a nekk. dans la mesure où amul fenn foo xam ne ni commission euh, euh, régola euh, kii rogatoire am na fi mhm. amul fenn foo xam ne ni ni Sénégal yi jóg nañ taxaw ni compte bi ciblé nañ ko ñi bëgg a wax naan sax compte Karim Wade la ñuy wax mais Karim Wade c'était six cent et quelques milliards lañ ko doon topp mhm. pour li mu am ak c'est bien et tout et pourtant taxuloon ñu ne gis nañ ko mhm. donc moom su ñëwee mu ñëw wax li mu wax amul fenn fu mu ko teg c'est à Ousmane de revenir au Sénégalais pour leur dire que je m'excuse damaa juum ci le montant bi ma bëggoon wax man mën naa comprendre mu bëgg ni fekk nañ ci benn compte dix milliards mu juum ne mille milliards. donc su fekkee cible am dafa nekk à l'étranger ñoom lay waxal mais pas quand mu leen di jaay ay ay ay du vent. mais c'est pas du tout normal mënul nekk ñun Sénégal mënuñu nangu. ñoom duñu xalaat de. kenn benn Sénégalais bu ànd ak moom bu àndut ak moom mën a nangu ni loolu am na. Mm-hmm. donc mënuñu nag faire nous faire croire que effectivement loolu am na c'est pas possible. mais mais, mais pourquoi nga wax loolu parce que y des gens yoo xamante ne ne des ministres de la République qui ont appuyé la thèse qu'il a avancée donc euh, donc euh, mën nañu wax ne ne peut-être ñoom gëm nañ ko. xam nañ bu baax a baax que ne eh, li muy wax am na. parce que mais mais c'est normal kenn ñi mujjee weddi Ousmane. ñoom ñëpp Ousmane la ñuy jaamu nag. voilà ñoo la gën a xam ne amul kenn da koo ñëmut a weddi kay. Ousmane moom buur Kajoor la nee na ay waxam kenn du ko weddi ñoom bugaat ñi ko doon jéem a weddi garde à vue lañ ci fekk kon ñee duñ ko weddi ku ko ci weddi da lay dàq dañ koy mën a dëggal quoi Ousmane da ngay nekk xaram topp ko munoo ko nga mu dégagé la <laughs> moom mu ngi ci logique am de voilà ñu desandi ak yow euh, dañuy ñëw peut-être wax ba tey ci euh, campagne bi euh, door na def nañ une semaine ci campagne bi am na ñu jot xayma boo doon xayma yow ci semaine bi lan nga ci mën a jàngat ndax gis nañ ne démb quand ca Tambacounda waa takk wàllu dañoo def conférence de presse wax ne ñi nga xamante ne ñoo di sàmm sa kàddu ñëw nañu rangé wu dernier ñu tek li nga xamante ne moom moo di benn coalition pour fair face au régime gis nga xam nga nag xam nga élection yi. Mhm. dafa am enjeu yu mu am ci réew mi parce que suñu réew mi moo menacé wu. parce que damay wax chaque jour ne boo nekkee ci kër nekk faak say famille euh, ngeen jékki-jékki benn wëyu ne cëpp ci kër gi bëgg buub alalu waa kër gi dem ku nekk bu toogee sa néeg ne sama yoon newu ci seetaan ku mu dugg néegam ba mu yóbbu ko bu ëllëgee néegu keneen la jëm yéen kay da ngeen di bàyyi xuloo bee xëccoo bi lakk lu bonam ba mu génn kër gi ngeen doog a continuer nag nu ngeen régler seen problème mais moom moom bu fanaan ci kër gi. c'est-à-dire que président Macky Sall bi